monsieur l'arbitre pour léegi nag final bi moo fa des diggante Boy Maroon à droite ak Pakala bu Mbour à gauche Pakala moo daan Bulldozer en demi-finale Boy Maroon daan Gouye Gui en demi-finale et ñoom ñaar ñu noonu lan la Boy Maroon di na ko daw. Boy Maroon kong na ko daw hey. ça fait partie de la préparation mystique c'est ça la lutte sénégalaise ça fait partie de la préparation mystique hey, tu vas prendre avertissement da nga koy jël arbitre sifflé waat génn seen diggante ay waay arbitre bi bi sifflé na génn seen diggante Boy Maroon Pakala bu Mbour Pakala à gauche Boy Maroon à droite Boy Maroon a nga ne teg daal di miime waaye demul fenn Pakala mu nga koy déglu Boy Maroon jëli na ko daf ko bëgg saax saaxee combat ma nga xale la. lii di wax léegi c'est l'expérience face à Pakala à droite Maroon à gauche génération l'expérience face expérimenté que Boy Maroon on n'en disconvient pas L'as ne fait pas la gloire. C'est la technique et la puissance qui fait la différence attention Boy Maroon jël na ko takk na ko. Boy Maroon lu mu bëgg Boy Maroon lu mu bëgg eh Boy Maroon Boy Pakala Boy Maroon daan na Pakala Boy Maroon daan na Pakala Boy Maroon daan na Pakala et c'est terminé Boy Maroon daan Pakala oh oh jàmbaar daanu na oh jàmbaar Pakala daanu